alayhi masyu sajari masyu sajari itam xadis yi yëpp maanaam xadis yu siiw la garab yu bare bare bare abdul am na imaamu tirmisi nettal na ko ak ñeneen yu bare bare bare ki ñu wax abdullah ibnu amir xadis yu bare bare yoo xam da caa wax ne da caa nettali lu mel noonu masyu sajari saf la wala boog jaabir jaabir ibnu abdullah nettali na ko am na xadis boo xam ne jaabir ibnu abdullah moo ko nettali wax benn arab yi benn sàmm arab boo xam ne dafa mas a romb yónte bi toog ak saxaaba yi nee na ma ñëw nuyu leen jàmm sant ak ñoom wax leen fa ma jëm yónte bi ne ko kaay ma tegtal lu gën a baax loolu lépp mu ne ko loolu lu mu doon mu ne ko nga see nga seere ne benn benn buur rek am benn yàlla muy allah dugg ci lislaam loolu mu gën li ngay dox fa nga jëm fépp leen sàmm arab bi jàpp ne xanaa kii da koy da koy da koy kóggale mu ne ko waaw yow lan moo mën a wan ne fi ne maanaam yonente nga yonente bi ne ko garab gale ngay seen mu ne ko léegi nu nu ma ko ci xame mu ne ko da ngay dem woo ko ne ko kay wuyu Muhammad leen sàmm arab bi jàpp ne xam naa ki mu dem ne garab gi eh kay wuyu Muhammad nee na fi saase garab gi ci moom tam génn maanaam génne maanaam maanaam kii reen yi nga xam ne moo nekk ci suuf génn ba taxaw suuf tam di dox garab bi day jot di dox ba ak suñu yonte bi alayhi salaam yonte bi seere la ko baati seere yi garab bi seere ko wax ñëpp di yow yaay yonente bi alayhi salaam yàlla képp mooy yàlla moom kese yow nag yaa yow la yow la yónni bu la ko delluwaat garab gi dellu ba àgg fa mu fa mu nekkoon mu mu duggaat ci suuf sàmm arab daal di daal di daal di daal di moom daal di ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu annaka muhammadun rasulullah maanaam seer naa ne yow moom yonente bi yàlla lii moom kenn mënu ko nitu kese mënu mënu mënu lool lahun siqaaqul xamari lahun siqaaqul xamari mooy weer wi itam loolu maanaam maanaam xadis wér na ci lool ci ne yonente bi xar na ko alxuraan sax wax na ko iqtarabati saatu wan saqal qamar maanaam weer wi waa Makka ci boobu ñoo ma sa daje wax ko ne ko li ngay wote nii sonal na ci dañoo bëgg daal def loolu loo xam ne boo ko defee nu gëm soo ko deful nag nga nga bàyyi li ngay wax nga xam ne doo yónent ñu ne ko loolu mu ne leen loolu lu mu doon ñu ne ko dañoo bëgg weer wi ngay seen nga xaral nu ko ñaari ñaari ñaari gaal ñëpp di ko seen waa dëkk bépp daal boo ko defee ñoo xam ne yónente nga yónente bi ne loolu bu bu ko defee ngeen ngeen ngeen ngeen gëm yàlla mu ñu ne ko waaw loolu kay boo ko defee nu gëm yàlla yónente bi taxaw ñaan yàlla fi mu fi ñaan yàlla yàlla wan ngir yàlla wan leen kiimaan gu mel noonu fi saa si ñu gis weer wi ci boobu daa daa tàmbale xar def ñaari gàll di nekk ci wet bi di nekk ci wet bi ñi koy nepp li dañoo xam ne genn gi dafa taxaw ci kaw safa safa dañ taxaw ci kaw kaw marwa marwa ak safa ñaari montagne la waaye man li ma ci dégg lépp ci riwaayat yëpp boo ko dajalee mooy maanaam jëmmi maanaam ñaari gaali weer wi rek bii dafa nekk ci wet gi bi nekk ci wet gi maanaam bi dafa nekk ci wetu safa bii nekk ci wetu marwa bi loolu amee nes tuut mu dajawaat moom moom weer wi léegi nag waaw dëkk bi ne ko ah lii de moom gis nañ ko waaye nag dama yaakaar suñu bët yi nga njabar léegi da ngay bàyyi ña tukki woon bu ñëwee ne gis nañ ko niñ ko gisee ñu doog a tuub wax nañ ne ginnaaw ba itam ña génnoon dëkk ba bañ ñëwee ñu laaj leen dañuy wax ne bis boo bis bis sàngam ci guddi sàngam gis nañ weer yi def ñaari xaaj ginnaaw boobu dañu la wax taxul nag waa dëkk ba tuub xam nga waa dëkk ba maa makkawu xam yëpp nekk nañ ñoom seen doy waar taxul ñu ko waaye loolu kiimaan bu rëy la mooy lëfum si xaaqul xamari bi dil baqaa wal qidami loolu lépp nag yónte bi doo ko def ci kattanu yàlla masalan dinaa ci nett li xëy na loolu sëñ bi dana ko wax léegi mooy masalan keroog ba ba ba loxo yi gën a ndox loolu def na ko ay yoon yoon def na ko Xudaybiya te Jaabir ibnu Abdullah moo ko nett li mu ngi Saxiix Buxaari def na ko itam ak Zawraan li suñu maam toon doon nett li keroog nga xam ne Anas ibnu Maalik moo ko nett li boobu ay riwaayaat yu bare bare na yoo xam ne yëpp it mi ngi ci Saxiix Buxaari ak Muslim jaabir ibn abdullah dafa wax ne booba dañ ko fekk mu toog te xam nga waa armée bi yëpp ba xodee bi xam nga waaw junneeg juróomi téeméer lañu woon yoo xam ne dañoo dem bëggoon a umra ji waa Makka aaye leen te lañ bind bindante accord yooyu ne ñun fi kaw nga dëpp ba déwén nga doog a ñëw umra bañ fa nekkee nag fañ nekkoon ndox dafaa jafe ñetti xeexoo am na ci mooy bañ njëkkee jàmmat yonante bi ndox mi ne ko teen ba ndox ma mañ nekkoon ndox ma daa dem ba ñiis ba jeex ñu jàmbat ko yonante bi yonante bi bañ ñëwee wax ne ko ndox teen daal sëñ bi ndox mi daa daa jeex ndox amatu ko daa roppi benn bali set ci bali set yi yore neen yóbbu la ngeen samp ko ci bi ñeen ne ko ci samp ñu gis ndox mi fu ne moofu bal bal bi ñëw maanaam ndox mi damm li génn ndox mi mën a daamel daa jeex ñu fekk ko fa mu toog di jàpp ñu ne ko daal gaa ñi ñëpp daal kenn amul loo naan fi ñëpp a ngi mar xiif maanaam maanaam ndox ma daa jeex mais mu mu mu ne leen lan ngeen defee ci ndox mais ñu indil ko loo xam ne lu tuuti la mu dugal ci baaraam bi mu dugal ci loxo bi tàllal ko ne albarakatu minallahi maanaam wax ne yàlla na ci yàlla def barke rek ñu gis loxo yi ci moom fii nii xarante ndox yi fu ne ndox di fa bale di di génn gaa yi ñëw di tànk kenn ku ne tànk la nga soxla ci ndox ñi bëgg a naan naan ñi bëgg a jàpp-jàpp jaabir ibnu abdullah dafa wax ne keroog moom ndox ma dama caa naan naan naan damaa xam ne ndox moo xam ne dafa bale ci loxo yënt bi ndox moom neexuta am moo tax nee na ma def ci sama waaye li mu li suñ bi wax ni mooy bisil baqaawal xidami mooy lépp ci kattanu yàlla la ko def maanaam nit doomu aadama yëpp kenn ku yàlla bàyyee sa sa bopp rek doo mën dara yonente yi itam rawatina ñoom ñëpp ku ci yàlla bàyyi sa bopp doo doo mën a def dara ñoom ñëpp lu ñu def ci kattanu yàlla lañ koy defee ak ndigalam boo gisee boolem xar baax yi am ci yonente yi itam bala ñu ko def boo gisee da ngay danañ ñaan yàlla mu mu feeñalal yéefar yi xar baax boo xam ni danañ ci jaare gëm ku mel ne Seydina Saalix gis nga nit ak nitam yi bañ ko génneloo aw ak naada ne ko nag ne ko montagne yi Saalix ab yonent la alayhi salaam yéefar dañ ko wax ne ko montagne yi nga seen daal da nga bëgg nga génn ci genn gileem gu mag boo ko defee nu gëm mooy leen loolu boo ko defee ngeen gëm ñu ne ko waaw loolu kay boo ko defee nu gëm ndax loolu moom jàpp nañu mënoo ko mu daal di julli ñaar rakka lañu wax daal di ñaan yàlla ne suñu gis montagne yi jëm di yëngutu di yëngutu xeer yi dal fee yee dal fële ñu jógee genn genn gi dem ponkalam gi dem ne ci bokk ak genn aywa waa dëkk ba boobu ñu bari nag wax nañu ci tay boobu lañ gëmee waaye ñenn ñi ne ko lii daal sëñ bi ak njabar la moom gëmuñu taxut ñu gëm gileem nga xam ngeen ko mu ngi ci alxuraan nekk gileem goo xam ne ba mu ñëwee leen na jariñ lool ndax ngoon gu ne kër gu ne dana fa taxaw waa kër ga ratt li ñu bëgg ci soow mu jàll ci geneen kër noonu la ko def ba dëkk bépp daj nga xam ne moom xewal la waaye nag daa mën a naan nga xam ne moom bu demee ca teen ba naan bis booba ndox fépp ndox du fa du fa def ñu ne Saliou yow sa gilam bi moom baax na lool ci noonu waaye nag li muy naan daa bari fi ne bu daanee ci teen bi kenn mën a tënk léegi Saliou ne leen kon da ngeen def bu ngeen naanee tey bu subaa mu naan gilam gi dégg ndigal bis bi gaa yi war a naan du naan bis ba ci suuf ba ci ba mu war a naanoo bu ñëwee nag moom seen bépp lay naanoo la mu naan lépp ndax day ponk la mu gërëm ba ni ñenn ci ñoom xëyee suba rek ne daal gileem gi toll nii ak yàq yu bari yi duñ ko fi bàyyi nan nan ko faat nan ko ñu ko rek daal di koy rey waaye gis ngeen li ma wax mooy gis ngeen bi mu daa rabee xar baax gi dafa julli ñaar rakka kon lépp lu ñuy def ñoom yonente yi li suñ wax bisir baqa wal xidami ci kàttanu yàlla dañ ko def ak ak maanaam ànd go yàlla ànd ñoom ak ndigalul suñu borom tabaaraka wa taala yonte bi tam bokk na ci xar baax yi suñu wax mooy kaana yusilluhul xamam loolu it ay natt yu bari rot na ci mooy maanaam may sara xale ba ko soxna Xadija boole loon moom sëñ moom Seydina Muhammad ba mu koy ba muy dem ca di ko commer di commerce di jaayal soxna Xadija may sara moome ba mu ñëwee bokk na ci dam natt li mooy dafa seetlu yonte fu mu taxaw niir wi dafa dafa day nekk fi moom maanaam moom du nekk ci naaj daanaka diirub yoon bi yëpp nga xam ne fu mu taxaw day gis ni ñuy wax niis li ngay gis léeg-léeg mu niis fii niis fee am naaj noonu la ko defee nga xam ne daanaka du nekk ci naaj bokk na ci dem riwaayaat yu bari mooy te bokk na ci loolu ba Abu Talib di dem Saam te bañ rombee labbe boobu ñuy wax bu xayra xam bokk na ci bu xayra lam seetlu mooy mooy bi ñu toogee ci garab gi Seydina Muhammad daa mujj ñëw fa mu wet ka nga xam ne fa mu nekk fa mu toog ci garab gi amul kar waaye keru garab gi moom moo wëlbati ko maanaam caral ko loolu loolu moom si kaana yow yu yëndu ful xamam maanaam niir wi da ko daa topp yooyu yëpp itam yàlla koy def ngir ngir wan nit ñi ne kii ab yonente la rek boo gisee yonente bi lii lépp lii taxutoon mu nekk ci jàmm fi ne maanaam ci coono la nekkoon loolu lépp nett nañ ko ci ak ci ci fan yu wees coono yu métti ci la nekkoon bind bu tarit bu métti bu xat ci la nekkoon waaye teewul yii nag yàlla da ko daa feeñal ci moom ngir wan nit ñi ne kii ab yonente la damaa ko yónn yaraa wara aw amam wa aynuhu kaanat tanaam wa qalbuhu lam yanami loolu yonente bi moo ko wax moo ko wax soxna Aysa mi ci xëy xëy ni yëpp mooy man bu may nelaw it sama xol du nelaw loolu yonente bi alayhi salaam moo ko wax ak it lu suñ bi wax ne minha tajannubu zubaab an bismihi maa siyaab kadaka tashilu shiaab billahi muulil maghnami loolu wax naa ko léegi mooy weñ yi dawuñu ak ci jëmm jë alayhi salaatu wasalaam minha tawassul tuyuur bihi ba tey itam bokk na ci li suñ wax mooy xam nga yonte mas naa toog ci jàkkat yi xadis bu wér dama fàtte ko ko nettali ci ñi ñi nettali xadis waaye dafa jëkkeeki am picc dugg si jàkkat yi ak coom fekk fi mu fi mu toog di waxtaan ak saxaaba yi am na saxaaba yi boo xam daa jëkkeeki ñëw toog ci mu ci ci ci ci toog yi fi nit ñi toog ni mu ñëw toog ci ginnaaw ne suut am picc ñëw di coow coow lu bare bare yonente bi ne waaw man fa man fajaa haadihi bibniha aw kama qaala alayhi salatu wasalaam maanaam kan moo tooñ picc mi ñëpp ni cel mu ne ñëkkut ku jël ay ay ay ay cuujam de ndax loolu lay jàmbat moom picc mi benn waaye ne ko ah maa ko jël man de maa ko jël daal mu ne ko nag delloo koy cuujam loolu lay loolu lay jàmbat lu yëpp ma nga doon